waaw mbokk sénégalais yi dëkk fii ci Italie Yok TV ak yokk rajo mooy dellu si eh, di wax ak yéen suñu waxtaan nak toujours mu ngi concentré wu ci li nga xamné moy suñu nekkil fi ci Italie li ko commencé ci mbirum këyit yi waye aussi di dinañ bëgg ci yeneen émission yi ñëw waxtaan ci mbirum dëkkuwaay ci mbirum wér yaram ak ci mbirum liggéey ak formation ñu ngi ko commencé wax waxtaan bi depuis le mois d'août euh, à la veille sanatoria ci sanatoria 2012 sanatoria nekkoon di may këyit bépp liggéeykat boo xam ne yaa ngi Italie te yoroo ko di leen wax ne mbir moomu yeneen koy fàttali mu ngi terminé depuis le 15.

dina gën gaaw surtout nak sénatoriat yi njëkk yi fi doon am manam loi régularisation yi passé ndax té bi pa non seulement dafa cher mais gis nañ né ñi déposé woon wu ci Italie yëpp à peu près 130000 trente mille personnes ñoo déposé woon euh, depuis nak le début du mois de décembre mbir mi mu ngi avancer manam préfecture sportello unique pour l'immigration pour l'immigration bi la euh, préfecture de Milan commencé à convoquer déjà nit ñi ñu ci déposé le 15 septembre nous loi bi ubbeekoo nous nga déposé entre le 15 septembre et le 20 septembre ci ñi dëkk Milan nous ci convoqué li suñ la convoqué nag dama leen di yëgal rek li ñuy laajte pour ngeen euh, euh, jël seen préparation yépp nga xam ne parce que képp koo xam ne ñu jot a convoqué yónnee nañ leen lettre wax leen li nga xam ne moom lañ war a yóbbaale moom laa leen di limal nii pour képp koo xam ne demagoo te jotagoo convocation nga xam ne yàlla saa yu yàlla defee sa convocation ñëw këyit yi nga xam ne moom nga war a préparer pour yóbbaale ko. Euh, li ñuy njëkk laaj ci liste bi mooy timbre fiscal bi nga xam ne bi ngay def déposé moom nga communiqué woon ci internet numéro ba ñu koy wax marca da bollo fii ci italien marca de bollo boobu ñu képp kuy dem war nga ko yóbbaale su yàlla defee mu réer ah il faut nga dem defi li ñuy wax euh, declaration de perte ca police ñu jox la attestation bi mais nga yore ko su fekkee ne mu ngeeg yor yow nga yóbbaale ko mooy li gën a wóor ñaareeli këyit bi ñuy laajte moo di ne ñu ngi laajte document d'identité euh, ki nga xam ne moo nekk employeur bi defoon demande bi pour régulariser ab liggéeykat su fekkee ne travailleur domestique wala travailleur subordonné <coughs> ki nga xam ne moo la déposé mbir mi laaj nañ document d'identité su fekkee italien carte d'identité d'homme, doy na su étranger la carte d'identité ou wala passeport am ànd permis de séjour am euh, carte de séjour la sax lay wax ak carte de séjour am mom moom la ñuy laaj liggéeykat bi nak bi nga xam ne moy étranger nekk jóge bitim rew nekk fi muy pour waxtaan ak suma ñi nga ne wax ci suma mbok sénégalais sax ñom lay tax ñu wax li ñu laaj liggéeykat bi mu yóbbaale mooy na yóbbaale passeport am original bi la ko yóbbaale ak benn photocopieur bu ànd ak original bi ñeenteeli kayit bi nag mooy euh, képp koo xam ne da nga déposé woon travailleur domestique waaye badante maanaam pour dimbale nit koo xam ne dafa manqué dafa feebar ñu koy wax fii badante kooku laaj nañ certificat sanitaire ki nga xam ne moom ngay liggéeyal doon ko dimbale ci parce que dafa tawat wala dafa màgget donc certificat bu wane ne nit kooku kat dafa manqué wala dafa feebar wala dafa tawat pour ñu wane ne kooku su boobaa duñ ko laaj ndax revenu ndax situation moo laaj ne war am koo xam da koy ci juróomeeli dokument bi mooy 1000 euh, euros yi ngeen fayoon ca poste ci formulaire bu ñuy wax F20 24 F24 formulaire boobu original bi laaj nañ nga yóbbaale ko euh, sixième dokument bi mooy document bi wane ne yaa ngi woon Italie avant le 31 décembre 2011 parce que vous voulez ne loi qui m'a régularisé moi ki nga xam en Italie avant le 31 décembre 2011 te Donc, kayit donc euh, juróomi documents yi juróom-benn documents yi vraiment mooy yi nga xam ne laajte nañ ko am na en ñaar nag yoo xam ne ci mbirum dëkkuwaay de bi le concerné mooy. képp koo xam ne waxoon naa leen ko Italie képp koo xam ne nguur gi daf la war a jox kayit il faut mu xam fan nga dëkk non seulement dina xam sa tur ak sa sant mais il faut nga xam fan fan nga dëkk te dëkkuwaay boobu nga nekk tamit nekk na dëkkuwaay bu set bu rafet looloo tax euh, document bu concerné mbirum ñaari document la benn bi ñu ko tuddee ko déclaration dichiarazione di ospitalità maanaam ki nga xam ne moom la dëkkal Euh, ñëpp xam nañ ne fii ci Italie képp kuy dëkkal gan su da nga ko war a dem déclarer questura wan ne kat kii bitim réew la jóge étranger la maa ko dëkkal nga déclarer ko euh, commissariat de police donc document boobu ñuy wax document d'hospitalité kooku lu war ngeen yóbbaale ko euh, ñaareeli document bi ci mbirum dëkkuwaay mooy fii nguur gi dafa wax ne étranger bu war a am këyit dafa war a dëkkuwaayam dafa war a jaar yoon donc këyit boobu ñu ngi ko tuddee alloggiativa attestato di idoneità certificato idoneità alloggiativa donc boobu commune moo koy joxe maanaam ki nga xam ne moo la dëkkal dem commissariat wane ne moo la dëkkal dafa war a dem ci commune bi nga xam ne ci zone am foofu la bokk ne commune bi contrôlé xool na kër gi nit ñaar ñett wala ñeenti nit mën nañ fa dëkk

ñetteel bi liggéeykat bi photocopie passeport ak original bi ñeenteel bi mooy képp koo xam ne yaa ngi liggéey nit ku feebar këyit bi wane ne dafa feebar dafa tële nga yóbbaale ko juróomeel bi mooy 1000 euros ya ngeen fayoon poste pour def demande bi original bi euh, reçu reçu boobu ñu koy wax F23 f war ngeen ko yóbbaale aussi wax nañ aussi wone ne. preuve Yangon, Italie avant le 31 décembre 2011 juróom a bi moy déclaration d'hospitalité Jérôme ñeent euh, juróom ñettel bi nek certificat d'identité allocative bi woné ne kër gi nga dëkk normal na pour ñu jox le këy këy yi nak wax dëgg yalla ma ngeen di encore conseiller ngeen lu ci motul ngeen gaaw jóg ko waaw su ngeen yeggee euh, préfecture nag am na beneen këyit boo xam ne moom préfecture moo koy jox yow liggéeykat bi ak travail bi ngeen signé ko muy wane ne yow mii liggéeykat bi sa employeur de ba mu la commencé jël mois de mai ba ba ba loi bi taxaw mu fay na la mu ngi la doon fay sa salaire loolu mooy remplace rek mbirum busta paga yi kon busta paga euh, muy bulletin de paye obligatoire c'est pas nécessaire nit di ko préfecture parce que soo demee préfecture dinañ la signaler ben keuy bo xamné momay remplacer lolé yëpp ba préfecture képp ko xamné travailleur bu fa dem dinañ la créer dinañ la jox créer dinañ la créer codice fiscal ba nopi ci biir préfecture su lu melni ni Milan wa IMS ñi nga xamné ne ñoo yore yafay contribution sociale ñom dinañ fa nekk tuuti créer le numéro définitif rapport de lavoro su loolu yëpp paree préfecture dañ lay jox modèle pour modèle bi nga xam ne ñoom ñoo ñoo koy remplir liggéeykat bi signé ko employeur bi signé ko dinañ la ci jox ñaari copie originale benn bi pour employeur bi beneen bi pour travailleur bi donc dina la jox aussi enveloppe bi nga xam ne moom ngay dugal kayit yooyu yëpp euh, ba noppi euh, fo ak formulaire bi koy rem bi remplir pour demander permis de séjour bi pour nga demander ko ci commissariat zone bi nga xamné fofu nga dëkkee loolu enveloppe boobu yëpp nak comme enveloppe yi ñuy demander permis de séjour wara renouveler séjour enveloppe bobu kay yooyu yëpp yi ñu la jox préfecture mom ngay jël dem poste fay ko fay fofu foofu 127. 50 pour enveloppe bi ak euros pour poste moy 137 euros 50 ak marque de bollo nga poste jox poste rendez-vous jox le reçu ba jox rendez-vous jour bi nga commissariat pour te ba actuellement nous melni Milan

dañoo xawoon ñàkk temps yi moo tax génnewuñu programme mais bi bëri na du jeex donc dañ koy def rek ndànk ndànk pour leeral suñ mbokk yi suñ vie ak suñ doxalin fii ci réew mi su ngeen demee ci youtube yokku tv punto com mën ngeen ko seetaan waaye am na beneen support boo xam ne maa ngi koy génnee di ci liggéey nga xam ne dama bëgg lépp loi boo xam ne mu ñu concerné ñu faram fàcce ko expliquer ko su mbokk yi ci làkk wolof boobu loolu nag dafa laaj liggéey bu bëri moo tax pour wàññi coono yi wàññi dépense yi am na beneen euh, outil bu ñuy wax euh, yokk rajo nga xam ne ci Facebook soo demee da nga ko fa fekk yokku rajo euh, aussi ci YouTube da ko fa fekk donc dama buggul lépp loo xam ne mu ngi concerné suñu mbokk yi ci mbirum immigration waaye ci mbirum intégration fii ci réew bi ñu sotti ko ci wolof joxe ko di leen wax ne aussi ci mbirum sana sanatoria bi jeex li ci muju modi nek nekk xamna xam ne peut-être sax loolu warul bari ci sun mbokk yi mooy képp ko xam ne nga 1000 euros te yalla deful nga am temps pour déposer wala nga amone problème déposer wo loi bi oubil na la fi ba le 31 janvier képp ko xam ne nga 1000 euros yi ba paré la wax dé ku ku mu ku fayaloon nag mais ku fayoon 1000 euros ba pare loi bi may na la nga def dépa déposer pour bokkaat ci sanatoria bi parce que dañoo ministère bi dafa gis ne lu ëpp 7000 personnes yoo xam ne gis na ne fay nañ 1000 euros mais déposé Bon, moo tax mu ubbi loolu. am na loi bu ñuy wax loi Flusser boo xam ne ubbeeku na temps yi mais concerné wul ñi amul kayit loi Flusser bi pour convertir ñoo xam ne dañoo permis de séjour pour ou wala permis de séjour pour leneen pour transformer ko mu nekk permis de séjour pour travailler loolu mooy dernière information en gros li nga xam ne moo ñëw euh, fii ci Italie di leen wax ne Yoku TV yokku rajo euh, bépp euh, information bu ngeen ci sox soxla su ngeen ci contacter ci email wala ci numéro téléphone. bi nga xam ne ñu ngi koy joxe fii ci site bi incha allah dinañ la tontu pour gën laa leeral bi maa ngi leen di nuyu di leen jox rendez-vous la prochaine fois jërëjëf.